jërë ngeen jëf mbokki internet di Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balaq di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax rawatina nag ñi xam si ne ñoo topp suñu émission bi di la voix du peuple euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax ci ànd bi ngeen ànd ak suñu émission bi di la voix du peuple fii ci Rafah TV la chaîne de télévision religieuse euh, tey nag comme ni ñu ko daan defee rek a chaque fois dañ doon daal fi benn ndaanaan ci biir ndaanaan ci émission la voix du Fall nekk PD nekk président ASELT xam naa danañ ci dikk gën a yaatal euh, sëriñ Moustapha ginnaaw nuyoo bi ak ziar bi lan moo say kàddu nuyoo jëmale ko ci internet yu Rafah TV. asalaamaaleykum euh, sëriñ Sidi asalaamaaleykum Rafah TV. Uh-huh. ñoo ngi nuyoo mbokki internet yëpp jiital ci nuyoo bi sëriñ Mountakha Bassir. Uh-huh. xalifa général ku lu murit di di la jaajëfal ci dalal bi. di uh-huh. jaajëfal waa Rafah TV yëpp ci disponibilité. Uh-huh. jërëjëf sëñ Moustapha ci liggéey ci nuyoo bu am solo boobu nga xam si ne nuyoo googu woon mbokk internet yu Rafah TV nag ñu ngi fas yéene waxtaan ci li xam ne mooy AGELT AGELT nag mooy lan mooy alliance des jeunes entrepreneurs et leaders de Touba. Uh-huh. noonu lañ tënkee AGELT. Uh-huh. Uh, loolu nag boo ñu ko bëggoon tey définiral tey jii lan mooy bu la laajoon lan mooy AGELT rek lan nga doon jox comme réponse waaw euh, sëñ Sidi AGELT benn kuréel la boo xam ne si nii. Euh, ñu ngi ko sos il deux ans. biñ koy sos euh, ñu ngi ko sosee euh, résidence Cheikhoul Khadim uh-huh. mu doon alliance des jeunes entrepreneur et du Touba. Uh-huh. AGELTI nag boo ko gisee li tax ñu formé woon ko dañuy gis ne euh, bon entrepreneur Sénégal en général nit ñi bu ñu amee seen ay diplôme ba pare dañuy ñëw ci société privée yi wala société publique yi. ñu uh-huh. leen di exploité. léeg-léeg sax mën nañ fay def ay stage yu yoo xam ne si nii du jeex mukk. looloo taxoon ñu créé ko en général ñi ci nekk ñëpp ci tab bi en général université lañ jógee. Uh-huh. nekkoon université jógee fa bi ñu fa jógee ñëw créé seen fi bopp. Uh-huh. Uh-huh. Uh, création bi lan moo leen poussé woon à ce que ngeen créé tey lii di Agent. li tax ñu créé ko mooy c'est-à-dire dañoo bëggoon au moins euh, on voit une une une forte évolution de l'entrepreneuriat ici à Touba. mais amul organisation formalisé wuñ ko aussi. léegi ñu commencé ko ne il faut ñun ñi nga xam ne si au moins xaw nañoo xam dara. ñu ñu ñu ñu former nit ñi euh, jàppale leen ci seen entreprise ba ñu koy mën di boste uh-huh. di di di leen booleeg ay bailleur yoo xam si dañ leen mën a financer. Uh-huh. très bien euh, loolu yaakaar naa nekk na lu am solo di uh-huh. euh, jéego yu am solo yoo xam si ne waa agent ñu ngi koy di alliance des jeunes entrepreneurs leader de Touba. alors ginnaaw bu ñu dikkee ci loolu xam si ne mooy création bi da nga ñu dikkal très rapidement li nga xam si ne mooy objectif agent lan la. Ah, objectif agent bon. mën nañ koo tënk ci ci ci ci ci ci ñetti mbir. benn bi mooy xeex li nga xam ne si nii moom la entreprise privée yi di di di doon def nga xam si dañuy jël kenn euh, jëlee ko université mu yor ay diplôme ñëw teg ko ci table ji. mu ñëw au lieu ñu jël ko dañ koy def loo stage un an deux ans. après ñu ñu sànni ko ne ko euh, stage bi jeex na. léegi léeg aussi ñu leen surexploité ci biir fi ñuy liggéeyee di leen liggéeyloo yeneen liggéey yoo xam ne si ni bokkul woon ci contrat bi. bokkul seen profil de stage bi donc. loolu mooy première bi de deux li ñu liñ li ñu bëgg mooy nit ku ne euh, bon indépendant maanaam c'est-à-dire avoir une indépendance financière <laughs> parce que yaakaar naa nit adduna boo ko dee xool ñi fi ëpp alal ñëpp ci entrepreneuriat lañ ko amee du ci fonction lañ ko amee wala bu nekk ci fonction aussi dañ koo parallèle ak entrepreneuriat donc looloo tax ñu ne il faut ñu former jeunes ci lan mooy entrepreneuriat <laughs> ñeme loolu leen ci ba nga xam ne si nii tey jii lépp lu mën a xew dinañ mën a demal seen bopp. Ah. parce que euh, gis ngeen nit ñi population bi mi ngi yokk. Ah. lépp mi ngi yokk. Ah. donc boo xoolee dernier recensement yi am euh, ci ci ci ci département yi nee nañ le département Mbacké c'est le département le plus peuplé. donc kii di euh, population en termes démographiques. di également opportunité. opportunité financière. cela veut dire que buñ formé ndaw ñi fii. de temps en temps dinañ am euh, une indépendance financière. Ah. vis-à-vis des des des entrepreneurs. Ah. Euh, troisième bi. troisième bi bon léegi euh, dafa dafa fii Touba dañoo gis ne à sa fois lu ñuy lu ñuy lu financement yi ñëw Touba yëpp. doog si ci entrepreneurs yi te ah, waa DER par exemple. récemment indi nañ fa financement yoo xam si presque plus de deux milliards la. ñoo di ko fii ci département Mbacké. mais Touba duñ ci am accès. entrepreneur duñ ci am accès léegi en général les politiciens. Euh, prédateurs ñoom ñooy ñooy ñoom ñoo koy kii ak seen ay mbootaay. ñoo koy fexe ba kar ko. fexe nuñ ko financé ci seen biir te amaana sax ñooñ duñ ay liggéeykat. donc loo yooyu noonu moo tax AJEL tu jug. bi mu jugee taxaw pour xeexal entrepreneur yi d' abord. pour xeexal leen li ñu war a jot ñu ciy jot. di leen di leen former. Mhm. alors euh, taxawu ndaw yi rawatina ci wàllu employé employabilité. Mhm. alors euh, ndax euh, loolu nga xam si ne moom ngeen visé. Mhm. wala loolu nga xam si ne ci ngeen nekk di yëngatu yéen a ngi ci gis résultat. bon ñoo ngi ciy gis résultat parce que au moins on a formé des jeunes. Ah. yoo xam ne si nii. kuréelu AGELT la AGELT li mu commencé presque mutu woon sax cinq personnes. Ah. actuellement on a on a on a presque plus de cent cinquante membre macha donc loolu. yaakaar naa doonatul lu ndaw. waaw entrepreneur ñu ngi jóge fu ne di ñu contacter ñoo xam ne si ni sax ay eh, homme politique lañ. di dugg biir Agile di pour entreprendre. donc loolu ñu koy sant su sant suñu borom. Euh, ndaw ñi ñu nekk di leen forme c'est-à-dire ni ñu ni di mooy dañuy jël benn ndaw ñu xool ci lan la nekk. ñu boole kook benn tuteur boo xam si ni moom lañ koy booleel pour mu koy yokk xam-xam ci li mu nekk. te ku ne euh, surtout la la digitalisation. ñun. waa Azel te dañ ci def lu bari parce que monde bi moo jëm foofu. effectivement monde bi c'est le monde digital on monde toll. waaw y y a du marketing y a y a a y a beaucoup de choses uh-huh. dans le web. Uh-huh. donc y a des sites uh-huh. loolu nag pour nga man ko créer pour man a def au moins sa état financier normalement il faut ñu former la. ci loolu ngeen di former xale yi yéen. ci loolu la ñuy former ak lu mel ne le la saponification. également on on forme les les les sur. Euh, les, les, les, savons, quoi, les savons de Nîmes. Formation de, de, oui, de Les savons savon de Nîmes, uh -huh. les, les, les, les, les darkassés. Pour nous défarcer les sabots, nous avons une autofinancière, autodiscipline financière. Alors, euh, Azalt, ñi ci nekk ay góor lañ ak ay jigéen wala ay jigéen kese wala ay góor kese. ay jigéen lañ ak ay góor. waaw ñëpp nekk ci localité bu Touba. am na ñu nekk Touba am na ñoo xam ne Touba lañ dëkk mais liggéeyewuñ fi sax. waaw alors pourquoi le choix est porté sur Touba nag et pourquoi def leen ko de manière euh, générale. Mhm. Euh, le pays en question. donc ñun dañoo xam ne c'est-à-dire Touba. fi lañ jugee. fi lañ jànge fi lañ màgge fi lañ jugee aussi biñ ñu jugee li ñu gën a naqari mooy le fait que ñu orienté ñu ci université yi. université yi nekk Dakar. te Touba ñu ne mooy deuxième ville amul benn école publique bu fi nekk. déjà déjà état foofu waroon na fee def. xaalis bu bari defu ko fi. parce que lu mu gàtt gàtt Touba waroon na am stade parce que dëkk la comme dëkk yëpp. Touba waroon na am école parce que. dëkk ay école ay école dëkk la war a dëkk la. pourquoi ñu ne Touba wurut am ay école. lan moo tax parce que dañ ne jigéen ñee góor ñu wur ñoo jaxasoo. mais pourquoi pas ñu toog ñu waxtaan. Ah, pourquoi pas trouver deux écoles une école pour les fii et une école pour les garçons. effectivement lan moo tax loolu amul léegi dañ ñëw. ñoom waxtaan a ñi nga xam ne si ni sëriñ bi ñoom la dénk njàng mi fii ci Touba muy wal comme waa Rawdu Rahin uh-huh. ñu ne leen yéen ban solution ngeen gis ci Touba léegi Touba nag ngeen jàpp ne noonu lañ fi mën a defee école uh-huh. donc ñoom dinañ leen andi ay solution effectivement ne leen école jigéen ñi tey bu nekkee Daaru Musi uh-huh. beneen école bi na dekk yoonu Taïf effectivement ñun yooyu moo ñu naqari si à dire gis-gis bi ñeneen ñi di am Touba te tu ñun Touba fi lañ fi lañ juddoo fi lañ yeroo su ay maam daan ànd ak sëriñ sëriñ bu mag bi donc ñun bépp xeex bu ñuy def wala lépp lu ñu investir dañ ko indiwaat Touba. effectivement euh, kenn du la ci dàq sax ndax euh, tubaab bi nee na charité bien ordonnée commence par soi même bay ci sa weewu tànk euh, dafa mel ni agent mi ngi waajal benn événement bu am solo mm-hmm. muy journée de concertation bu ngeen war a amal le 3 février 2024 fii ci département bu Mbacké mm-hmm. alors ndax mën nga ñu dikkal ci journée boobu lan moo ko tax a jóg mm-hmm. journée bi bi biñ koy li tax ñu toog xalaat yi c'est-à-dire on a évalué deux ans yi parce que AGELT euh, le bureau récemment lañ def euh, assemblée général uh-huh. euh, fal président parce que am na un président sortant. Uh-huh. donc cela veut dire que am na am nay structure. Uh-huh. léegi ñu toog xool ne président sortant bi moom mi ngi doon nekkoon ci ay formation nekk ci ay séminaire di forme jeunes yi léegi ñu ne il faut ñu évaluer liggéey bi ñu def. xayma ko ci waa ci biir entrepreneur yi li li ñu leen defal il faut ñu évaluer ko donc ñu toog ne il faut ñu faire une journée wala ñu booster leen ñu jàpp ñu ci benn salle boo xam danañ fa mën a fekk autorité yi ak ñëpp ñoom ñu toog waxtaan seen ci seen biir seen ay projet pour pourquoi looloo tax ñu ne il faut ñu attaquer une journée de concertation de la jeunesse ñu ngi ko tuddee journée de concertation de la jeunesse donc euh, journée boobu ça va regrouper presque les entrepreneurs Ah. Euh, natif de Touba et aux alentours. Ah. ñu ciy waxtaan ay thèmes yu am solo. Ah. donc euh, loolu la quoi. mooy euh, yéen entrepreneurs yi kese la doon wala autorités étatiques et religieuses yu nekk ci dëkk bi dañ leen di convoquer da leen di convier ci ci ci ci ci journée de mm-hmm. concertation bi. Mm-hmm. journée de concertation journée de concertation de la jeunesse bi dina dina dina regrouper presque man na ma wax tout le monde parce que y a y aura la presse comme vous. Mm-hmm. y également. les autorités étatiques comme ni nga ko waxee. Mhm. am na aussi ñi nga xam ne si ni da leen a laal parce que ñi yor financement yi da leen a da laal ñoom dañuy ñëw dañuy toog. effectivement ok. Euh, wax nañ lan moo waral journée de concertation bi wax nañ aussi fan lañ ko amale muy war a am le 3 février 2024 fële ca Mbacké Bawal wax nañ aussi ñi xam si ñoom la fa war a regroupé pratiquement wax nga entre au delà des entrepreneurs y a des autorités étatiques y a des autorités religieuses ak ñoo xam si ne tey euh, touché nañ euh, agente touché nañ ñoom dana ñëw ci ci ci ci journée de concertation bi mm-hmm. alors programme journée de concertation bi lan la ndax gisoon nañ ne avant avant une journée de concertation da ngeen doon def ay séminaire mhm. ngeen dem ba tey ngeen ne pourquoi pas ñu organiser benn journée. Mhm. ngeen marqué ngeen marqué à grand pas sax man na ma ko waxee noonu. Mhm. Euh, vers une journée. alors euh, programme journée bi lan la. c'est-à-dire programme journée bi mi ngi commencé à 9h. bu commencé donc ñu ngi ko euh, ñu ngi koy ouvrir par mise à plan des des des de invités. après ñu def des panels. ak ñoo xam ne si ni seen xam-xam màcc nañ ci. Mhm. comme danañ def benn benn panel sur la formalisation des entreprises de du département de Mbacké. Mhm. ensuite boobu sera présenté par euh, Serigne Aliou Mbacké. Mhm, euh, spécialiste en passation des des marchés publics. Euh, le thème 2 qui parle de l'employabilité et l'entrepreneuriat. sera présenté par docteur Fallou le représentant aussi. Il est un docteur euh, en, en sciences mmh. Donc, il est le représentant aussi euh, d'une ONG qui, qui s'est basée en Allemagne. Mmh. Il est le, le, représentant également, le gouvernement allemand ici au Sénégal. Mmh. Donc, euh, moom mooy moi présenté tem thème, boobu noonu sur l'entrepreneuriat et l'employabilité. Ensuite, on a le thème 3, parce que tout Touba, l'état nous thème Bob, ça. Moi, Touba, dañoo gis ne entreprise yu ndaw yépp maanaam formé luñ am looloo mooy mooy seen mooy seen handicap pour ñu mën a am ci marché public yi. Uh-huh. donc ak kan moo war a am marché public. Uh-huh. yaa def ñooyu yëpp dañ ko war a ràññee. Uh-huh. du ku jug rek da ngaa war a. gagner marché public donc euh, ñu am koo xam ne si ni c'est un spécialiste aussi euh, en passation des marché publics. au au au Safre SA actuellement. Euh, donc. moom mi ngi ñëw cest à la problématique ci la problématique de l'accès des PME. des des petites et moyennes entreprises. petites et au au au public. donc c'est ça. Euh, ASALT bi euh, programme bi ngeen teel objectif bi xam ne moo gën di viser ci journée bi lan la. donc objectif yi liñ ci donc ASALT liñ ciy xaar bu ñu fa jógee. naka lañuy mën a def ba Touba lépp lu ñuy gis ci yeneen dëkk yi. ñu gis ko fi ñu gis ko fi. est que dana yomb bon dañ ci def suñ dara yombul. bon tubaab na ne loo man di def dangay ngay commencer ba pare. effectivement foofu dañuy commencer. léegi moom je suis entièrement d'accord avec vous. waaw obstacle ci mën a gis ñu jéem koo surmonter. Ah, def suñ ah, ko la gàttal ah, ba yàlla jàppale ñu ci rek. Uh-huh. Euh, alors euh, Azelt. Euh, uh-huh. taxawaay par rapport ak jeunesse bu département bu Mbacké. Uh-huh. Hmm. donc. jeunesse bi jeune suñ taxawaay ak jeunesse bi lu rafet la. parce que à chaque fois ñun dañuy booster seen jeunes yi ñu liggéey. Mhm. parce que département Mbacké bi gis nañ ne mooy département bi ëpp chômage. Mhm. malheureusement. waaw ëpp chômage fii la. Mhm. Euh, xale yi ñu ci bari peut-être dañoo formel dañuy dañ peut-être dañ leen a sacrifier comme li ma la wax ñàkk école beeg yooyu. xamuñ lan mooy liggéey. léegi nag. il faut AGELT aussi euh, ñu ñu accompagner leen surtout parce que am nañ ay expérience ñun am nañ domaine yëpp corps de yëpp am nañ ko am nañ des ingénieurs en BTP am nañ des ingénieurs en agronomie ainsi de suite ainsi de suite am nañ des infographistes am nañ des des docteurs en sciences en sciences politiques profil bu soxla rek boo soxla am na am na fa donc donc ñun dañuy domaine bu ñu bëgg dañuy waxtaan ak ka ca ne ah. donc bu ñu ci waxtaanee def ca benn projet xool naka lañ naka lañ koy financé suñ biir. Ah. jàppalante ay ci ay cinq mille francs ay ay dix mille francs ba mu mat. Ah. buñ ko mënul ñu dem xool ale les les institutions de l' état comme la DER la Promise. Ah. Euh, la FONGIP ainsi de suite que ñoom ñu épaulé leen. Mm-hmm. alors Azelt day yëngatu ci wàllu politique. non non c' est apolitique. c' alors euh, financement ak yooyu xam si ne moom ngeen soxla. Mm-hmm. fan ngeen koy jógee bon financement yi dañuy dem parce que institution état yi ñëpp lañ fi nekkal. ñëpp lañ fi war a nekkal waaw ñëpp ah <laughs> dimanche <laughs> rectifié nga wax nga dëgg <laughs> waaw parce que bon ñun sax ñi ngi daan liggéey ak euh, presque waa promise nga xam si dañ fa yabal léeg-léeg ay gone gone adulte ñu dem ñu jox leen ay moto tricycle pour ñu am ci sax. bu ñu wàccee benn 5000 francs wala benn 7000 francs. macha allah waaw mais léegi gis nañ ni ak euh, direction bi ni muy changé gëj nañ ñoo gëj nañoo am financement yooyu ci xale yi. parce que ñoom ñu ngi ci daan gis seen bopp. parce que dañoo jàpp ne ñun ñoo leen ñoo leen xale yi li tax ñu leen di jàpp dañoo jàpp ne ñun ñoo leen ëpp relation bi. bu ñu demee boole leen ak ñoom. fexe ba waxtaan ak secrétariat bi ñu génne leen euh, seen financement yi. ngeen nekk fi comme comme link. comme link euh, wala wala wala intermédiaire di leen nekk lien ci ñoom ñaar ñooñu. Uh-huh, uh-huh. macha allah mu nekk euh, liggéey bu am solo. Uh-huh. alors Azelt yéen a ngi wax ne yéen a ngi waajal benn journée de concertation de la jeunesse. ndax man nga wax rek au delà ñooñu nga xam si ne ñi ñoo bokk ay membres lan ci Azelt. population bi du du département Mbacké ña ngeen ci invité. Euh, bis bi ñii ñii lañ ci ciblé c'est-à-dire autorité étatique yi. Hmm. d'abord waa AGIS AGIS mooy commerçant yi. commerçant et industriels association des des des commerçants industriels du du Sénégal. ñoom ñëpp suñu ay partenaires ah. lañ ñoom dinañ ñëw. danañu waxtaan a xale yi. alors AMTS association de marchands ambulants des marchands ambulants des marchands tabliers de Touba. ñoom ñi ngi ci biir AGELT. ah macha allah maa euh, <laughs> ngi nuyu de passage. Seydou Guèye le secrétaire général. ngi ci biir AGELT. alors ñoom adhéré nañ. ñi ngi ci biir AGELT ah, ah. <laughs> ah, à chaque fois dañuy ñëw dañuy dégg suñuy waxtaan dañuy rey ñoom ñun. Mm-hmm. donc euh, bari na kuréel yoo xam ne si dañoo dañoo dañoo créé woon mais biñ bi AGELT créé ak tedd yi ñu ci gis. Ah. ñoo xam ne ñii duñ ay duñ ay caaxaankat. donc ñoom ñëpp ci lañ ñëw. daal di daal daal di fusionné seen seen seen ay kuréel. Ah. très bien euh, sa kàddu daa dafa ne li ñuy jegaloon coxtu dafa mel ñu ngi ñuy signalé ne mat na say kàddu kàddu yu tàggatoo rek ci mbokk internet yu Rafah TV. Mm-hmm. Euh, yan lay doon. bon xanaa di di di sant waa Rafah TV rek di di di wax aussi mbokk yi ñuy dimbali. comme à chaque fois ni ma koy waxee ñuy dimbali entrepreneur yi. Uh-huh. parce que entrepreneur li tubaab naan le soutien par passe par la caisse. Uh-huh. noonu nga koy dimbali da ngay ñëw jënd ci li muy jaay. waaw. ah boo di kon dafa am lu muy jaay. bari c'est-à-dire ñun comme man damay jaay ay café uh-huh. damay jaay ay nabadaay lu ne lay defar di ko jaay. donc yooyu nañ damay lancer un appel boo xam ne c'est pour tout le monde. c'est pas seulement les entrepreneurs de AGELT. boo xam ne képp kuy liggéey dañoo war a ñëw jën ci li ngay jaay. parce que nit ki nga xam ne si ni yow yaay nijaayam wala yow yaay baayam wala yow ñëw ne la jox ma financement tel ma def de entreprendre ndànk-ndànk ah. kooku wax dëgg li nga ko mën a jàppale muy jën ci li muy jaay muy dox muy dox ndànk-ndànk. ba keroog muy keree leneen. Ah. ensuite may wax euh, xale yi aussi ñu am euh, passion. bëgg mel mbir nekk ci. nekk ci nekk ci nekk ci ba keroog muy jur dara parce que koo gis fii mu taxaw looloo tax. Ah. ci benn la commencé les jeunes ils sont mhm. mais ils ne sont pas mhm. la persévérance. Mhm. c'est-à-dire foofu la persévérance parce que la la persévérance day demander temps bu bëree bëree bëri. Uh-huh. parce que mën ngaa créer benn mbir boo yàkkamte wut rek doo gaaw gis. ci persévérance nag ci nga dajeeg lu ne. Uh-huh. loolu sax la ñuy wax buntu wërsëg presque. parce que ci li nga ne. yàgg ci di ci doxal di ci doxal ci ngay mujj daje koo xam ne si ni moom ci boppam moo lay ñëw épaulé la nga def ah, waaw ah. mais dañ koy commencé benn fan rek ñu ñu bàyyi ko bon ah, waaw mm-hmm. sàllaaw euh, dafa mel ni dañ koy faral di wax Euh, kuy def bu naqaree nga daw buy neex du la fa fekk. <laughs> Uh-huh, uh-huh. Euh, kon bu naqaree rek euh, muy suñu mbokk jeunes yi. Uh-huh. nañ toog xaar xam ne bu daggu dana dikk. te ku yàgg ci teen baag amaana baax fekk la fa. <laughs> yàlla bu mu doon bu dagg nag. incha allah <laughs> sëñ Moustapha ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wisi bi nga xam si ne moo nga wis suñu woote ti eh, seq jataay bi nga xam seq nañ ko di émission bi de la voix du peuple. ka euh, kasaalika noonu la di jaajëfal tamit ñi nga xam si ne ñoo doon topp ci émission la voix du peuple fii ci Rafah TV la chaîne de télévision culturelle et religieuse di leen jox deg di dig daje beneen émission jàngeen jëf